waaw di nuyu mbekku internet bu baax a baax sëriñ bi di nuyu di nuyu sa caméraman bi di wax ni a billahi samil alim min asheytaani rajim alhamdulilahi allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad mbokki suñu mbokki internet ñu leen di nuyu te di leen baalu àq ci weeru koor te di leen baal àq di ñaan yàlla lépp luñ ci woor wala ñu jaamu ko ci yàlla yàlla suñu borom nangu ko ñi nekk ci diaspora bi tam ñëpp ñu nekk ci jafe-jafe yàlla na suñu borom teggil leen ñi tëdd ci lalu hôpital yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne ñi ngi ci tawat yàlla suñu borom teggil leen tawat ñi nga xamante ne bi ñi ngi ci jafe-jafe àdduna yàlla na suñu borom saafaraal leen ko ñun fi ñu dëkk dañu dëkk ak loo xamante ne dañu dëkk ak ñoo xam ne feek doo bàyyi xel sa bopp mën nga xëy suba mbir ne càpp ci yow dugg la dugg boo xamante ni mën na la yàq li waral tey ji li tax ñuy dëkkee Sénégal muy ay weer yu néew am na lu jotoon a xew Sénégal fii deret ji bari tuur lool coow li bari lool yàlla dimbali na nag ba du nekkul lu ma bett parce que waxoon naa ko avant coow li di am ci benn émission bu ma def seen TV yàlla def ba ngay wax sénégalais moo naqaree waxal boo waxee moom daanaan kii de day wax rek ci teeyu bakkanam fekk damay wax ma ne dafa am ñoo xam ne suñu borom daf leen dimbale may leen kashfu may leen basira wala mu may leen maanaam xam-xam boo xamante ne bii bu leen bu ñu gisee benn mbir bu ñu ko waxee suñu bon dana daf tegal xawoon ñaare nag nit ñi dañuy jaawale xam-xam ak kii gént dafa am ñaari différent waaw Sénégal fi nga toll tey jii nee naa la képp kuy doomu aadama muy ndaw muy mag kum ci mën a doon boo xëyee suba sangu saabu ndox ak saabu génn dem sa yoon rek sa bakkanañ ci xottu gerte parce que da ngaa dëkk ak rab da nga dëkk ak ñi nga xamante ne bi ay boromi tuur la ñuy doon te nag dëkk bi dafa am lu ko samp mooy li ko samp muy ñaan ñaan yi nga xamante ni kilifa diine def na ko mel ni tey jii maam ah, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Maolana Cheikh Ibrahim Niass Seydil Hadji Malick ak Limaamu Laay bu Kunta Njaasaan waaye ak lim fi ba waaye nag li nga xamante bi mooy première source bi muy dëkk bi dañ koo ñàkk ak deret parce que Serigne Abdou Serigne Cheikh Serigne Cheikh Tidiane si almaktoom daan na ko wax daan ne sange leen réew mi balaa réew mi di sangee boppam deret waaye nag wax na ko yaa cinq ans wala six ans nit ñi di ko ñàkkal fayda anamu tey mi ngi nii waaye tey ji lépp loo xamante ni moo fi am mun naa mën a ko ku sanguwul suuroo sarxewoo maanaam sa sa sa problème day daal di bari mooy waral nag dëkk bi day toll foo xamante ni bi maanaam nit ki dana xëy suba di wër benn mbir pour mu am ko day nekk lu jafe wala bu fekkente ne bi koo xamante ni bi tam mën na wuti den am na ci ñoo xam ne ñaata yoon nga fi gis ku jàng ba bari diplôme boo xëyee suba mi ngi ci mbedd mi di manee bariw lu ko waral parce que damay wax ma ne ñaar gis nga doomu aadama bi di ndaw bu jàngee ci réew ba am fay diplôme lan ngay def dem université université fa nga xam ne fa la nguur gi tey ji ñu leen di fay bourse foofu mooy problème bi foofu pro moom place rab la munoo toog weer woo xamante ne bi gisoo fa xeex wala deret tuuruwul université Cheikh Anta Diop ba ma ko dalee wax yàgg na waaye nag damay wax ma ne ñoñ nguur ñoom ñëw jur seeni doom ba pare te protéger wuñ leen protéger bi du ci danga koy fay bursu da nga koy jox bursu wala danga koy jox nangam déedéet la nga xamante ne bi da ngaa ñëw fekk ay ñoo xam ne dañoo tabax seen kër dëkk fa nga ñëw tabax ci seen kaw te neexalee la woon dara moo tax saa su nekk bari na koo xamante ne bi bu daan jàng ci école day am note bu baax bu xasee dugg université rek feebar jàpp ko lu dugg ci xel mi du taxaw ñu naan noo kii dañ koo liggéey fekk dem fekk ne ñun nañu bàyyi nit ki am rek ñu li dañ koo liggéey fekk nag place la Ndakaaru dafa bari pàcc yoo xamante ni ay place rab la ñi ngi ñi ngi ci tali yi ñi ngi ci coin yi ñi ngi feneen waaye nag daf ci am foo xamante ni bi boo fa demee te université Cheikh Anta Diop dëkk la rek dëkk la léegi ñaata nit ñoo fa nekk tey jii din jàng ba am baccalauréat di rêver pour dem université Cheikh Anta Diop waaye tey ji am na ci joon yoo xamante ni ci deeyu ñàkk fere lañ leen reyee moo tax ma ni la jamono ji ndaw ñaar lay so moytu sangu suuru sarxe ñeenti siin yi ndaw lu ko moytu rek doo réussir waaye nag ci kaw na ngay réussir am na ci ñoo xamante ne bi bëgg nañoo réussir waaye xamuñ fa ñuy jaar ñun daf ci am benn côté bu ak ñi ma ko war a wax dama ci bari yenn sëriñ soo xam ne nekkuñu ay sëriñ ay tari yàq lañ. ay la ñuy doon parce que nit ki loo jàngul doo ko tari loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. ñaare nag fii danga fi gis ñoo xamante ni dañoo nekkoon ci beneen profession doxatul ñu dugg ci wàllu mbir mi bari na ci du benn yoon di ñaar yoon laa koy wax ba ci yéen seen métier mi am na ci ñoo xam ne léegi ay sëriñ lañ am na ci ñoo xam ne ay sëriñ lañ te lii problème bi muy gis nga xam-xam nekkul loo xamante ni bi danga koy donn déedéet maanaam danga koy jàng donn ko ba pare nag xam ko waaye nag xam-xam nekkum benn pàcc kese gis nga yàlla dafa bind sunguf ak ak reen waaye nag sunguf a fi njëkk alquran waaye alquran barke bi mu am sunguf amu ko mooy wax moo tax tey ji téeméeri saari ak fukk ak ñeent yi nekk ci yàlla yi nekk ci alquran muy alif lam mim zalikal kitab bi minal jinnati wan naas lu ci nekk boo defee alif lam am na chiffre sunguf bu muy jàpp mooy ci li nit ki li nga war a ubbi ci nit ki wala li nga war a dindi ci nit ki moo tax nag am na ci yenn xeetu doomu aadama yoo xamante ne bi ñoom seeni mbir seen sungu fa ko gën a gaaw a baaxal ci seen i bidéw loolu boo ko jàng faw nga xam bidéw bidéw doomu aadama te ji am na ci nit koo xam ne boo bindee turam mën na toxawee ci ndox wala ci ngelaw wala ci suuf wala ci sawara am na nooy liggéeyee ak moom dana gaaw mu gis la nga xamante ne bi da nga ko soxla am na ci ñoo xamante ne mbir li seen li baaxal seen mbir muy xas rek benn xas xasu garab rek mooy baaxal seen biir mën nañ ko takk mën nañ ko xooj naan ko mën nañ ko mag xooj sangoo tax yàlla wax ci alquran wa nunazzilu min alquran maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina alquran bawul dara waaye nag yàlla da ko wàcce pour ñun tey jii ñu ti ko jàng di ci dimbali doomi aadama yi waaye nekkul ne bu fekkonte ne bi tajwid da rek ak jàng alquran ak xam-xam comme makka lay yem ñoom yàlla may ne na alquran waaye ñun yàlla mbóotum alquran la ñu may dinañ génne benn aaya alquran dagg ci xawaatim génne ci turu yàlla génne ci turu jinne génne ci turu xabon te loo bëgg a def ci nit ki danga koy def moo tax am na ci ñu may dégg ñu naan alquran ay mbiram dafa yeex ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñemee wax waaye man duma ko wax dama ni doomu aadama bi am na fuy biddiwam di toll boo ko bindalee benn benn benn aaya alquran yàlla day mel ni ñaan la sotti ceeg def ci la am na ci ñoo xamante ni bi tamit bind alquran jox leen defarul seeni mbir am na ci ñoo xam ne joxe leen sunguf defaral seen i mbir am na ci ñoo xamante ni bii tey ñu génne benn sarax moom mooy defar seen mbir nit ki danga koy faj te doo ko jox mu takk doo ko jox mu naan doo jox mu sang da koy faj da koy faj doo ko jox mu sang doo ko jox mu takk doo ko jox mu sang xam nga li tax yonentu yàlla Moussa dafa am lu ko yàlla waxoon daf ko ne woon wa takk lii man kàllaama am na fu muy tollu ci nit foo xamante ni bu mooy gën a gaaw nit ki nga jox nit mu sangu léegi nag nit dana andi xët-xëtam société yu bari yooyu ko yàq dama naan seetkat yi chaque jour am na dëkk bi fu muy toll foo xam ne ñoom ñoo koy yàq kër gu tas ñoo ko tas sëy bu tas ñoom ñoo ko tas diggante bu yàq ñoom ñoo ko yàqu parce que dañuy da ñëw nit ki bu amee soxlaam tey jii nga ñëw man ma lay laaj bu la neexee jógal dem sa yoon yàlla bu fekkee ne dafa am lum la jox yaa koy wane ci ci ñi nga xam ne yaa ngi ci ak ñoom waaye soxla yi damay wax ne chaque jour mi ngi bari sëriñ si yaa ngi gën a yokk te soxla yi mënta fexe ba faju kon lan mooy suñu problème dinaa la tontu foofu tontu bu leer xam nga damay wax ma ne xam-xam suñu maam yi lañ lañ daan wax way ndare wala mbóot mbóot lu nëbbu la way ndara mi nga ci sa ma nga ci sa biir néeg wala mu nekk sa suufran lal. maanaam bu ne waaw way kay léegi nag am na ci loo xamante ni bii bët du ko teg bët bët du ko gis parce que yàlla dafa bind doomi aadama yoo xam ne luñ ne jàkk ci bët mu yàqu. am ci ñoo xam ne lu ñu tudd ci sa kàllaama mu yàqu. am na ci ñoo xamante ne bi yàlla bind na leen waaye seen xel loo waroon a njort yow sa xel buñ ko njortoo rek yow loola day yàqu yontu bi nag daal di wax ne. am na bët am na ak làmmiñ alxiinul xaq wa lisaanul xaq ñaari seexam yi ak Asan dafa ci amoon ko doon catu morom ma ci la foofa ci la yonent bi dëggal ne cat am na waaye bu dee ci wàllu xaatim la dama lay wax ma ne la xaatimu kamaatara rek ngay gis ci ñu yi di ko publier ne ak Aliou Xanjar nee la li ngay yóbbu guerre war cee dimbali nit wala ngay faagaagal nit bët di ko tege xam nga tamit dafa am loo xam ne xel la parce que xam-xam yàlla moo koy jox ku ne yàlla moo ne soo ma ragalee rek ma xamal la wattaqullah wa yuallimukumullah wallah bi kulli shay'in alim moom la wax kon xam-xam bu doomu aadama di mën a am rek suñ borooma la ko jagleel waaye nag joxula ko pour nga ci noot nit ñi damay wax man ni dafa am benn aaya boo xam ne chaque jour dama koy wax dama naan man amila saalihan fa li nafsihi waaye xam nga na laa koy firee man amila saalihan fali boppam. fali boppam. waaw parce que nit moo moo koy firi rek loo defal nit rek sa bopp nga ko defal. te nag nit ki danga ko jëflante ak moom ci anam bu rafet nga dem mbiram baax mu andil la ay nit moo gën ko la ku toog ci télé di wax damay wax ma ni ñi toog ci télé ci internet bi di publier ay ndomba ndomba yow wérul maa ko wax. maa ko wax. xawaatim yow wérul maa ko wax. jaaro yu wérut maa ko wax te ku ko xamante ni bi am na ci leneen ah, mun a mën a ko mën na woo bu ñëwee ma takk parce que am na ci loo xamante ni bi nax nit ñi la fi mu nekk nii Europe Asie jaspora bi kenn gëmatul kenn waaye nag fa ndox daan taa heure boo demee fekk fa teb teb gis nga li toll ni xawaatim musallas murabbax musallasil ghazali musallasul kuntiyu murabbax nee naa la ñaari xawaatim yooyu képp koo xamante ne bii mënoo koo dagg mënoo mënoo dagg xawaatim nee naa la sëriñ su baree bëri xam nga lu leen um xawaatim bu ñuy dagg heure bu leen neex kamaataraa moo ci bëri am na ci ñoo xam ne buñ gisul këyit duñu liggéey déedéet am na ci ñoo xamante ne bii photocopie la ñu yëkkati di jox nit <laughs> waaw nee naa nag bu alquran jàng boo jàngee alquran ba pare dafa am loo xamante ne bii Serigne Mansour si yàlla na yàlla yokki leeram moom la ko daan nee na am na ci xam-xam yoo xamante ne bii nekkul ci nekkul ci téere moom la ko daan wax waaye nag su nekk ne jamono ji li problème bi da nga ci gis koo xam ne mu ne sama maam da daan faj su ma xëyee damay faj wala sama maam da daan ñaan wa sa maam daan na faj daan na ñaan waaye yow est-ce que la sa maam def ba sa baay ñëw jël ko yow est-ce que tànk yow topp nga ca looloo jar a am na loo xam ne du am na loo xam ne du gan ci nit ñi bu dee Aliou Khandiar nag maanaam tey nga nit tooñ la nga war ko duma à distance maanaam la koy duma du du nit da koy teg bët parce que nit a ngi yaa ngi publier benn mbir nit xam ci loo xamul nit xam ci turu yàlla loo xam dama koy wax saa su nekk dama toog ma ne ne man am na ci loo xam ne du ci dugg te dama koy wax saa su nekk mbirum junde du loo xamante ne bi xaw ma ko waaye duma ci dugg xam nga li tax lum la may xañ la ko du la may xañ la ko. bari nga daan dégg ñu naan ay mbirum dañaan dañuy ta dañuy dañuy yeb ay jinneeg yu kenn xamul kenn déggatu loolu xam-xam la boo xam ne paasuwul buntu néeg bi. xam-xam boobu du dara. maanaam xam nga li gën a wóor nga jàng xam-xamu xaqiiqa. kooku boo ci xasee bu dugg branché ci nit roppi ko dootul yomb. parce que nag yàlla moo ñu wax ne moom moo ñu bind wàccal ñu ab yonent ne nañu roy ci yonent bi qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafuurun rahiiman yow mu ne nekk jullit ba pare nga ne da ngay tabdil da def kiraama yoo xamante ni bi maanaam dëkk ya nga koy jàngee du ñuy julit ngir lan ngir alal alal ji gën a neex tey ji mooy nga liggéeyal nit mu génne sarax yëkkati bopp xalima jox waaye ñun da ngay ñëw fi ñu ne ma sama soxla bi nangam la boo ma fayul nangam maanaam fu waxtaan génn rek mun naa ma ne ko déjà foofu ñaan génn na fa commerce moo fay dugg prix en gros wala détail ki ngay waxal nag ba nga xamante ni bi fay na la mun naa ma ne ko bu dee ci yoon la danga koy defal décharge ana ñaan kon ana ñaan maanaam bu dee ci xawaatim ci jigéen la yoo xamante ni bi dañuy bëgg tey di nekkal di bëgg borom kër lay waral amuñ borom kër loolu ngay saytu bu dee góor la goo xamante ni bii tamit bëgg na soxna amul soxna lay waral amul soxna moom ngay saytu waaye du ci ne damay def ndomba goo xam ne soo demee ci jigéen non loolu xel sax mënu ko nangu xanaa kon kee moom biñ koy tudd moom dañ koo tudd tudd boo xam ne tegul fenn wala amul bàjjan sëñ bi tamit nañu yeewu. la wax dëgg yàlla. c'est ça moo tax ma ne la chaque jour maanaam bu ñu waxee benn affaire nañu dem ci source bi direct ñaan dafa am théorie ak pratique léegi ñun lii suñu problème bari na ci ñoo xamante ni théorie bi la ñuy utiliser waaye pratique bi mënuñ ko mënatuñ ko def parce que nag am na foo xam ne boo fa tolloo bu la nit ñi yaakaaree faw nga jaay say nelaw. waaw parce que am na ci heure yoo xamante ne bii soxla boo xamante ne bii suñ boroom doomu aadama yaakaare nañ la ko nga toog guddi suuf set def sa xiyaamu léeg yàlla du rejeté loolu. yàlla du ko rejeté. xanaa war nga parce que nelaw la nelaw dañ déggoo dañ ne mooy rakki dee. parce que am na heure boo xam ne boo ko toll boo fa tolloo nelawoo ko rek boo xëyee suba yow doo boo doon cent pour cent nga cinq pour cent ngay doon. imaam Malik bi ne ko annaw mu nelaw saqilu diis bi te fakkurin ci xalaat am na nelaw yoo xam ne boo ci xasee bu dugg rek yow nekkatoo nit mooy waral gént yoo xamante ne bi gént yi ñu ci bari ñu naan la waaw sarab dafa baax nangam nangam ainsi de suite loolu lépp noonu la léegi nag lii problème mu nit ki muy ñum dañuy jéem a lekk avance ba pare te du ñu bëri gis nga sëñ bi ñaan yombul de ñaan maanaam man tey jii bu ma doon tëggaat sama bopp nekkaat ndaw du ma choisir ñaan wallahi alxazim du ma ko choisir parce que li ma ciy daj néew ma ne nit dana ko daj waaye boo waree benn bala nga ne ñaar da nga sonn parce que nag yàlla maanaam boo koy rëbb da ngay xam fan nga koy jaar yàlla boo koy ñaan da koy xam yàlla boo koy jaamu da ngay xam fan nga koy jaamoo moo ne ñaan leen ma ma may leen sant leen ma adduuni astajib lakum waaye nag nit ki boo ko mënee boo koy jaamu faw nga xam ko taarifuuni qabla in taabudoon fa lam yaarifoon fa kay fa taabudoon maanaam yooyu yëpp dafa am com compression yoo xamante ni bi yow boo ko xamul tey ji am na foo xam ne boo fa tolloo tey ji ni nga fi dégg ci seetkat yëpp seen du seen profession waaw xam nga baaxe gi ñi nekk Europe dama koy wax saa su dafa am ñoo xamante ne yàlla bindul ci ñoom ñu war a tukki beneen suuf beneen beneen point mi ngi noonu ñu forcé dem am na koo xamante ni bi dafa yoroon fii bitig mbaggam weer bu dee muy am deux cent mille wala trois cent mille franc mu dajale loolu ba mu nekk ay millions mi xeeb li ko yàlla jox fii taaba taaba ci dem Europe bi muy dem Europe benn rien que yàlla tudd fa pour mu dem fa waaye bi muy dem Europe rien moom ci boppam bu dee ci wàllu cosaanam ba la mu war a def ci sarax pour loola nangul ko gunge ko defu ko beneen point mu ngi noonu ñaareel bi ci des muy nit yàlla dina bind ci moom tukki waaye ak dëkk bi muy bind ci yow loolu seetkat da koy xam waaye am ci ñoo xam ne seen genre ku ñëwee rek bu ñu ko seet daane yow kat yaa ngi jàpp yoon du la leeral ban yoon la. moom lañ moom ngay dégg léegi yow lan mooy problème bi yow comme yaa ngi jàpp yoon moom naka ngay mën a def moom ba yoon wa sotti. amul leneen léegi nag. am na ci ñoo xam ne suñu borom dimbali na leen ñoom bind na ci ñoom tukki waa dafa am ci ñoo xamante ne bii lii tukki bi muy du ñu def direct fa ñu jëm escale lay doon ñu ne la fii kat boo fa defee fukki fan ak juróom nga fay am wala nga am fa 21 jours nga xamante ne bii la nga soxla day am nga xam ne yow fa ngay dem di fa wuti di fa tuur sa ñaq boo fa nee cëpp bu dee këyit la dana yomb ci yow bu dee liggéey la dana yomb ci yow am na ci ñoo ne dem nañ fa 40 ans yoo xam ne aide la dundee. am na ci nag ñoo xamante ni bii rab a leen koy def rab moo leen di xabtal génne leen seen i seeni i kër ñu dem tukki donte ñu nga liggéey waaye maanaam dañuy am barrage boo xam ne seen diggante ak seen i njaboot wala seeni soxna dootu leen dégg nit ñi nag di ko jaawaleeg naan liggéey dañ ma nawtal dañ ma def na loolu beneen domaine la waaye bu fekkente ne bi ki nga xamante ne bii moom moo war a dem moo tukki ba yegg maanaam mën nga ko ñaanal. kooku bu dee ki nga xam ne bëgg na génn tey fii Europe fu mu ci mën a doon waxuma la waxuma la ñu ngeen wax naan waaw États-Unis visa am non non loolu buntu buntu bu mu fëgg nga tijjee ko par force. ah bu mu fëgg nga tijjee ko parce que nag. <coughs> saarooñ wàcce ca rayaan nga yow kooku di yëfi caaxaan déggoo ma ne la alquran fi fi nga ko toll ci sa xol loolu la lay delloo waaye nag bu dee danga nga fee bëgg a génn subhaana lazi asra bi abdihi hii gi foofu hii googu <laughs> sa tur yow mi bëgg a génn yaa fay dugg ah? noon non non am na ci ñoo xamante ne bii maa ngi koy waaye bu ma ko doon bamtu cent ans munuñ ko fals moo tax ma ni la xam-xam da koy jàng bu dee nag ci wàllu reen la wala sunguf am na ci yoo xamante ne bi da koy composé rek liggéey ko mu dem waaye am na ci ñoo xamante ne bii ci wàllu woowu tey ci wàllu tukki ak yu demee noonu yooyu ci bëree bëree bëri gàllankoor daf leen di sonal ba ba ci fii am na ci jigéen joo xamante ne bi toll na ay at munta sëy waaye bu duggee ci sëy mu yàqu mu duggee ci sëy mu yàqu pourtant dañuy wax ni góor rek mooy télé fekk ne déedéet jigéen day télé parce que li tax jigéen mooy tele muy jigéen su demee dema dema dem ba gisatul mbaax maanaam ovule rab moo koy bloqué parce que jigéen nag naa leen ko wax ma ni la li koy euh, chaque weer day tuur deret te weer wi muy tuur deret mooy delawaat rab ndaw moo tax rab di soxla saa su nekk dugg ci jigéen donte nag day tënk góor am na loo xam ne dama koy maye nee naa comme maye muy aaya bi nekk ci baqar wa is asaqnaa misaaqa baynakum wa rafa'naa fawqakum tuurakum summa ataynaakum bi quwwatin waskuru maa fiihi la'allakum tattaquuna kooku ci wàllu néew doole ci wàllu sëy la wax jaawale dañuy jaawale nag ki nga xam ne dafa télé judduwaale ki mu télé judduwaale munuma ci dara day leer de waaw waaye aaya boobu boo ko bindee boole ko ak xorom def sa kaas ba mu daw nga naan ko bu paree tamit ma mayaat leen beneen aaya boo xam ne mi ngi ci Isa wax ne wa maa in maskubin nga bind ko cent onze fois bu dee ci wàllu tële la ci waa ci wàllu néew kàttan kese def ko nga boole ko reenu keng nga di ko naan nga def ko pendant trois jours nga xool ah, waaw loolu moom bu fekkente ne waaye nag am na ci man yoo xamante ni bi sunguf yoo xamante ni man maa koy defaral suma bopp Europe fu mu ci mën a doon nit ñaa ñu ngi ko fay ñu ngi koy jël di ko fa yóbbu waaye nag duma ko du ma ko liggéey stoppé ko parce que am na diir boo xam bu ko fa defee day yàqu te dafay def effet secondaire loolu laay bañ moo tax ma ni la bu ñu duggee ci alxuraan gis nga reen ni julli juróom di doxee noonu lay noonu lay garab di doxee bu heure bi lu ci nekk rek li war a jariñ ci reen bi rek mi ngi ci xob bi wala mi ngi ci xas bi léegi nag yooyu faleeku maanaam calcul la Euh, ba trois heures léegi nag 17 heures entre 18 heures lépp loo xam ne yaa ngi koy soxla mu ngi ci reen bi léegi mi ngi ci reen bi léegi nag yow yow yaay xam li nit ki méngool xam nga waxoon naa ko fi ne woon naa leen coowul Ousmane Sonko ak soxna si Sarr nee naa leen feeg nguur tàggiwul teggiwul deret dana bari yàlla def na sutura loola am na ba yàlla na fi yem waaye jamono jii ñoom li seen lanc logo yàbbeeguñ ko te lanc bi nag feeg yàbbeeguñ ko tóoru taar day métti moo tax yow kon moom kay maanaam bu du du ci dangay ngay dee tawat dana la jàpp loo xamante ni bi yow doo ko xam nga xam nga li gën a métti mooy yor alal ju ne gaam te munoo xam munoo fajo loolu mooy problème bi dafa am ñoo xam ne yàlla dénk na leen xam-xamu xeex te buñ ci duggee yéen rek musiba day am am na ci ñoo xam ne loolu ñoom nag dañoo dañoo dañoo validé woon ci wàllu mbirum këyit yi nangam nangam fekk gaa yaa ngi leen di fexeel am na loo xamante ne bii kuy am nit kuy liggéey ci wàllu nguur wala ci wàllu avocat boo yeboo nga ne ko mu teggi tànk wala mu toog moom ci boppam na xam ne fii lu mu àtte ëllëg da koy àtte yow man xiyaam li waral tax nag ñoom ñu tënk leen jàpp leen muy lañu waatoon prêter dañ ko dañ ko validé wul loolu mooy problème parce que nag lu le président fal fal fal fal fal la teg am na loo xam ne sa njàng moo la ko may. ngay jàng sa mu ngi noonu ñoom buñ leen jàppee. wala ñu jàppaleen ci côté boobu ñu wax c'est parce que la ñu waxoon dañ koo teggis def leneen fii boo fi teggee def leneen rek yàlla def leneen moom nag mooy fa'aalu limaa yurid moom mooy def li ko neex waaye nag am na loo xam ne boo ko àndee gëm-gëm xam na yow li nga nekk tey ji yàlla moo la fi teg heure bu ko fi yàlla nar a jeexee da ngay dem sa yoon kon dara du la jaral ngay jàdd ruq di def lu kenn xamul tegal ci yoonu siraatikal mustaqim soo ko defee rek yàlla daf lay noppal am na ci yenn yoo xam nag procureur yoo xam ne bu ñu tëddee dañuy nelaw aisément léegi nag ñi nga xamante ni bii dunduñ dund bi stable lu mu nekk ñu ngi ñu ngi ci bët guddi gi bët setagul jamono yee passé ñu ngi sonaloon askanu Sénégal ku nekk ñu naan day am na diw am na ñoom nag fi mu nekk ñu ngi ci guddi gi bët setagul moo tax bu ñu yeboon ñu nañu teli daal nee naa la képp koo xam ne yaa ngi koy mën muy njaboot gum ci mën a doon parce que maam Abdoulaye Sy da baax da daan wax naan boo duggee ci gaal yaag sa ëmb. bool ñaan yàlla ëmb bi ñaanal yàlla gaal gi mucc bu gaal gi muccoo ëmb bi dana mucc comme ñun nekk ñun ñëpp ci gaal gi suñu ëmb mi ngi fi nañu ñaan yàlla ëmb bi ñëpp mucc te ñi nga xamante ne bi ñoo fi nekk képp koo xam ne mën nga koo defati julli heure boo jullee ba pare jàngul salaamun qawlan min rabbi rahimin bariwul 111 nga koy def yaa ngi dégg heure boo paree ñaanal yàlla jàmm ji nga bëgg suñu borom joxe la ko bu fekkente ne nag julli nga naafi la comme ci weeru koor lañ nekk moom lu ñu mën a jaam di def istixfaar istixfaar baax na salaamun qawlan min rabbi rahim baax na yaa salaamu baax na yaa kaaf baax na waaye lu ci nekk rek lim la boo xam ne boo ko defee rek suñu borom mën na laa dimbali. est-ce que mën nga waaw lim bi tey jii bu fekkente am na ci ñoo xamante ni seen temps du leen ko may waaye bu fekkente ne bii yaa salaamu la mën nga koo def 111 yaa kaaf yi nga def 111. bu fekkente ne mën nga ko def nga daal def salaamun xawlan min rabbi rahim tam 100 waaye bu fekkee yaa kaaf de mën mën nga koo def limu latif 129. 129 129 yaa salaam bu fekkente ne bi nag loolu moom suñu borom dana dimbali jàmm dana dana wute jàmm te aussi dana la ubbi bu dee nag jigéen ñi nga xamante ne bii sëyaguñ wala dugg nañ ci seen sëy dëng. nee na am nañ ci yoo xamante ne bii bu ko yàlla defee dinaa leen ko mooy muy da ngay dem ci sóoratu yaasin. subhaanallazi xalaqal azwaaja kullahaa mimmaa tunbitul ardu wa min anfusihim ma laa na moom da nga koy faral di jàng bu dee jigéen la joo xam ne sëyam dafa dëng dafa nekk ci jafe-jafe heure boo julleetee da nga koy jàng juróom-ñaari yoon tudd sa jëg borom sa jëkkër suñu borom dana la dimbali juboo dana am bu dee nag ci wàllu mbirum doom la ak yu demee noonu yooyu moom xam naa ne comme temps bi xoj na bi bu ñu ñë buñ fi ñëwaatee dinañ gën a leeral lu bëree baree bëri. waaw soxna sëñ bi di santaat yàlla rek parce que ñun numéro yi nga xam ni moom la ñu yore ñaari numéro kese la bu fekkee ne fay na rek jàpp nañ parce que dañ koy wax mu leer parce que nit ñi tamit bu dee da nga am loo warloo ak ñoom ba ñu def la ñu war a def. yow defal la nga war a def nekkuma tout le temps ci téléphone bi waaye nag am na moment boo xam ne bu ma nit ñi woowee dinaa jot ñi ci des aw ma protocole aw ma ay ta non no non man maay liggéey ak pa bi nga xam ne moom may bindal def nañ fukki at maak moom kon kooku tamit dañ koy faral di souligner bu bari parce que nit mën na la woo benn yoon ñaar yoon mu ne ah ñii nii la ñuy def dégg naa ko fi ba sonn. waaye ah, nag nañ ñu comprendre xam ne bu ñu nekkee ci tey tey itam comme heure bi dana xat dinañ julli dinañ jaamu yàlla dinañ war a nelaw dinañ war a lekk dinañ war a naan tamit faw ñu comme ñun ay doomi aadama lañ du ñuy jinne du ñuy malaayika moo tax nag faw ñu leeral ko numéro yi ñu mën a jotee muy 77 908 79 73 wala ñu def 77 989 96 06 ñaari numéro yooyu la ñu yore. 908 79 73 wala nga def 77 989 96 06 yii mooy ñaari numéro yi nga xam ne ku ñu woobu suñ loxo jàpp dinañ la wuyu. Equivox TV waaw comme ñëw nañ fii ren ci weeru koor bi muy sahru Ramadan al mubarak constaté waat leen maa ngi leen koy wax constaté waat leen jamono ji ngeen fi wutee bi ngeen na fi andee balaa ma fi ñëwaat. bu leen neexee invité leen kenn ku leen neex ngeen invité ko waaye nag dafa am loo xamante ne bi maanaam boo ca soriwut jotiwoo ca internet net na li ci nit ki di def moo netul di wax nag wa aaxiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin